الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهو الظلمة وكشف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ibadallah mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ginnaaw loolu mbokk yi tey mooy le 8 mars suñ ko waxee ñëpp seen xel dem ci yowmul mar'a al aalami mooy journée mondiale internationale de la femme xew-xew boobu xam ngeen ne mu ngi am 8 mars loolu at bu nekk adduna bi yëpp moo koy ànd di ko feete ñu ne journée mooy bisu jigéen ñi bés bi nga xam ne seen jubluwaay nekkul ñoom ñu ko sampoon indi woon ko féeteeluloo jigéen ñi du seen jubluwaay nekkul lu dul ne góor ak jigéen dañoo war a yem ci ay àq waruñoo déglu benn diine waruñoo déglu sharia góor ak jigéen ñoo war a ànd ci lépp ci bépp droit li góor fépp fu góor war a taxaw jigéen dafa war a taxaw lépp lu góor di liggéey jigéen def kaa war a liggéey ba ci jiite nekk président wala leneen ak leneen lépp lu góor loo xam ne dina ko def jigéen war na taxaw ci wetam def ko ñu ne jigéen warul yem ci loolu rek dafa war a am indépendance totale warul déglu kenn ci ay mbiram dafa war a futteeku bu mu déglu kenn sànni fële ay aadaati cosaan ak diine lépp loo xamante ne jàpp nañ ne dafay gàllankoor dundam ci ñoom seeni xalaat na jaxasoo góor ñi na futteeku na def lépp loo xam ne rasaliya la lu ñaaw lu amul kersa amul ngor na libéré boppam lu ko neex mu def na sànni fële njabootam bu mu toog ci kër gi na génn comme ni boroom këram jigéen ne mbokk yi loolu ña ko woote woon nga xam ne yahud yi ñoo nekk ci ginnaaw ak franc-maçon yi lu tax ñu def ko mooy xam gu ñu xam ne lislaam dafa fonk jigéen teral ko am liggéey bu mu ko sant te mooy defar société loolu tax kenn ci ñoom mu ne iza aratta hadmul umma fa alayka bittaali mu ne bu ngeen bëggee détruire sus nation bu ngeen bëggee yàq xeet jëfandikoo leen ñett yii bu leen ci am lu ngeen di deltu ginnaaw bu leen ci dengi dengi yooyu ba ci jiitu mooy hadmul usra détruire leen société bu ngeen bëggee détruire société mu ne yàq leen njaboot famille bi yàq leen ko naka la ñuy yàqee famille mu ne jigéen ngeen di fétteeluloo jigéen ngeen di génn ci biir kër gi jigéen ngeen di fexe ba liggéey boobu yàlla santoon ko mu war a toog ci biir kër gi dafa kër gi yar njaboot gi tette leen wommat leen jaaral leen ci yoonu yàlla fexe leen ndaw soosu mu sànni loolu te xam ngeen ne yéen ñëpp jàng ngeen ne al ummu madrasa yaay école la école lu ñu fay def dañ fay jàngee école lu ñu fay def dañ fay formé woo école lu ñu fay def dañ fay yaroo kon bu fekkee yaay noonu la war a mel ci biir kër ñoom yahud yi ñu fexe tey ba jigéen ñi ci àddina bi li ci gën a rus lu mooy dëkk yu mel ne Sénégal nga xam ne quatre-vingt-quinze pour cent musulman fexe nañ ba samp fexe association yeewu yeew yi yeewu yeew yi fippu yooyu yëpp ay association la ay féministe jiite ko ñooñu tey la suñu jigéen ñi di déglu ñu utal leen ay journée tey boo xoolee dëkk bi yëpp di ngeen gis njaga njaay yeeg kaar yi jigéen ñaa ngi sol ay yére yu weex koo wax mu ne tey sama jëkkër moo ay mooy togg loolu mooy féttalu lu jigéen ñi génne leen ci biir kër yi fexe ba bu ñu amal ci kersa bu ñu am diine am na ci sax ci benn dëkk ci dëkku lislaam yi jigéen ñi ba ñu génnee di mars bi ko journaliste yi laajee mu ne jigéen dafa war a may àq comme ni góor amee àq jigéen war na am droit sax ba am ñeenti jëkkër comme ni ko góor di amee di am ñeenti soxna loolu xam ngeen ne loolu loolu mooy dëgg dëgg dëgg xalaatu yëngu loolu dëgg mooy yàq société ab jigéen di jullit bu dëkk bu juddoo ci lislaam ndee ma baa jur ko ci lislaam ñu fexe ba changé ko ba muy am xalaatu jigéen war na am sax ñeenti jëkkër futti jigéen ñi tey gis ngeen suñu jigéen ñu ñu mel koo fi wax ku la fi romb nga ne ko noo tudd mu ne Xadija Zaynab Umu Kalsum nangam ak i nangam yooyu lañ lay wax waaye seen diine yëpp ci tur yi la yem mu ngi nii tey année bu nekk ñu feetal ko na ngeen fexe bu ngeen buggee yàq société na ngeen fexe ba ñett ba ca jiitu mooy yàq leen jigéen ñi fexe leen ba bu nekkati yaay bu mu jurati na planning nay naan ay comprimé bu mu solooti na ñàkk kersa na génn bu mu toogati bu mu am kilifa bu mu déggal bàyyi bu mu déggal yaay bu mu déggal càmmiñ bu mu déggal diine bu mu am yooyu tey moom la ñu def ci suñu jigéen ñi génne leen ci mbedd yi di leen baleloo ay tali di leen jaayloo ay essence di leen di leen même suñu panneau publicité yi sax boo xoolee saabu bu ñuy jaay sax foog ñu futti jigéen ba mu set def ci saabu bi wala diw bi tey gis ngeen société adduna bi tey fu ko fu nu yegg tey ci jigéen ñi ak yàlla tabaraka wa taala fa mu fekkoon jigéen fa lislaam fekkoon jigéen nga xam ne daawul wax am na société yoo xam ne sax dañ ne woon jigéen seytaane la dañuy jël kànnaar bënn ñaari tuñi daal koy tëj ne na noppi am na ci ñoo xam ne daawu ñu lekk ak jigéen bu gisee baax am na ci société yoo xam ne bu ñu amoon doom lu mel ne ca arab ya mu nekk jigéen dañuy gas ba mu xóor rek daal di suul jàng nañ ko ci alquran yàlla ne ëllëg danaa laaj xale yi sax ñu doon rey lan moo tax ñu leen di rey am na ci ñoo xam ne sax bu ñu leen aw seen doom bu seen jabar ëmboon ba am doom mu nekk jigéen ñu fekk leen fa ñu nekk ne seen doom seen soxna am na doom nga gis leen ñu ñàngal seeni kanam ni ko alxuraan nettalee kon mbokki jullit yi foog ñu am delluwaat amaan yëg-yëg xam lan mooy sunu diine est-ce que ñun dañuy topp ci rek ci ginnaaw yahud yu weex yeeg yu ñuul yi ci ginnaaw yéeféer yu weex yeeg yu ñuul yi lu nu indi rek nu bàyyi sunuy jigéen bokk ci ndax dañuy déglu orientaliste yi nga xam ne yàq diine fexe ba doomu aadama nekk njaay àll rabu àll nga xam ne lu ko neex mu def ndax noonu la ñuy déglu tey ñu nekk suñuy kilifa mbokk jullit yi tey ku xool di nga gis ne yahud yeeg nasar nasaraan yi génne nañ jigéen ñi jullit yi ci seen diine ba mu set wicc li ci des tuuti la te loolu moo waral journée yi ngeen di gis li ci doy waar mooy mondialisé bu ñu ko mondialisé nga xam ne tey waa Ndakaaru sax yëpp nañ ne ñoom ci lan bokk ñoom Fatima ak ñoom Khadija ak ñoom Zeynab ak ñoom Umu Kalsum tey jii ñoo koy feetu ci Sénégal tubaab ba ko créé woon mu nga toog fële biir këram moom day san kontaan xam ne moom la taxoon mu sos mbir mi réussir la na ngeen fexe ba yaay yi bu mu nekkati yaay yi na ngeen fexe ba yarkat bu jigéen bii bu mu nekkati yarkat na ngeen fexe ba ndaw sii bu mu jaamooti yàlla bu mu xamati diine buum gi doxoon digganteem ak boroomam muy diine na ngeen ko dagg na solo nu mu ko neexee na dem fu mu ko neex na yenn fu ko neex na nekk ak ku ko neex na simmi ay àndandoo yu góor comme ni muy simmee yére bu fanaanoo kii tey bu ko neexee mu yor na ndokkee na ngeen fexe loolu tey ngeen def ko ci bopp jigéen ñi mooy journée yi ngeen di gis da ngeen yaakaar ne pour liggéey moo tax ñu yëkkati leen déedéet pour yàq jigéen ñi loolu moo tax journée yi am ñaareel ba mbokk jullit yi bu ngeen bëggee yàq société na ngeen yàq njàngale ma hadmu taalim na ngeen détruire njàngale ma waaye njàngale bu ngeen ko bëggee yàq lan ngeen di yàq ñu ne détruire leen muallim fexe leen jàngalekat bi bu ko kenn weget na ñàkk fayda na ñàkk fulla xale bi muy jàngal sax bu mu ko respecté ti fexe leen ba jàngalekat yi na xaalis rek nekk seen bopp defar société bu mu leen taxati jóg def ay nit tabax ay nit bu mu leen tax a jóg na leen poñetu àdduna tax a jóg na ngeen fexe ba ñoom ñooñu di jàngale bu ñu am benn valeur bu ñu am benn culture loolu tey ku leen ne woon lii ak yahud yi ak nasaraan yi ñoo ko def programme tey ngeen koy gis fii ci Sénégal di ci teg seen bët kenn mun ko weddi njàngale mu yàqu école yu yàqu programme bu baaxul jàngalekat yoo xam ne amuñu formation kenn du leen wekk loolu nekk programme mu yahud yi la na ngeen fexe ba njàngale bi na nekk rek commerce utum xaalis na ngeen fexe ba ministre bi nga xam ne ministère bi nga xam ne moo war a yor njàngale war a yor yar na ngeen fa dindi yar na fa jàngale des moo tax loolu lan nga doon dégg ñu ne éducation nationale léegi loolu amatut jàpp nga rek ndeke programme yahud yi la bokk yi ñetteel ba mooy na ngeen fexe ba royuwaay bu mu amati mar marji al qudwa bu ngeen bëggee yàq royukaay yi kan ngeen di yàq ñu ne al ulama borom xam-xam ya na ngeen fexe ba tuumaal leen di sikki sàkkaloo ci ñoom nit ñi am ci ñoom ay dut bu leen kenn wegati bu leen kenn déglu soo waxee borom xam-xam du ñu ne la ah cam kooku na ngeen fexe ba borom xam-xam yi bu leen kenn déglu ci na ngeen fexe ba sikki sàkkaloo leen na ngeen fexe ba. nañu ni ñuy gisee nit ñi nañ leen ko gisee ni ñuy toppee nit ñi sax ci politiciens yeeg ñeneen ñi na raw ni ñuy toppee borom xam-xam ya ñett yi ku waxal yàlla tey ci àddina bi xam ne yahud yi réussir nañ ko suñu jigéen ñi génne nañ leen def leen ay marchandise ay marchandise lañ leen def kuy jaay tey boo buggee mu jar sax foog nga woo benn jigéen ne ko taxawal ma fi waay wala nga def ko ci kees bi fi ñuy fayee nga xam ne ñiy fay buñ ñëwee moom lañu am waxal nangam ak nangam wala sax ñu teg ko ci porte bi solal la ko loo xam ne ñi nga xam ne dañoo feebar bu leen rombee rek ba mu bëggul jënd sax dana ñëw jënd ndeysaan benn waaye mu ngi yónnee benn vidéo barki démb benn xale bu jigéen bu nekk ci benn supermarché di jënd mu ngi sol lu bon benn waaye fekk ko fa bu mel ni moom ci mbon taxaw di xool ba ndaw si jënd ba pare génn xaalis bu nga fay mu ne ko maay fay waa ji ne ko maay fay ndaw si ne ko xaalis bëri na de mu ne ko maay fay lépp boo jëndoon boo waxaale ba supermarché bi sax ma jënd ko ndaw si ne ko bismillah fayal mu génn xaalis bu takk daal di fay ndaw si ne ko téyel ma mbuus mi mu téye naan ko sa numéro téléphone laa soxla fan nga dëkk ndaw si di ko jox rek ba ñu yegg ci oto bi ndaw si daal di ubbi bunt bi daal di jëkkër ji ubbil maan bi waa ji dugal mu ne ko da nga ànd ak góor mu ne waaw sama sama sama jëkkër la àndal mu ne ko fayatuma dama koy delloo may delloo fayatuma ndaw si ne ko lu tax mu ne ko dama yaakaar ne àndoo kenn wala tey foofu lañ toll ñun ñëpp foofu lañ toll tey yàq gu ñu yàq suñu jigéen ñi ci topp te alxuraan waxoon nañu démb wala yazaaluuna yuqaatiluunakum hatta yarudduukum an diinikum in istataau wala yazaaluuna xarfu wala la istimraar duñu deñ dañuy continuer ba adduna bi di jeex yahud ak nasaraan duñu tekki seen ngemb di xeex ak yéen yuqaatiluunakum kañ la ñuy bàyyi kañ la yahud yi di bàyyi xeex lislaam hatta yarudduukum an diinikum in istataaw xanaa nga bàyyi lislaam rek mi daal di noppalu ci yow daal lay takkal garaat daal ne yow léegi sunu xarit nga kii léegi sunu àndandoo la kii léegi comprendre nañu moom sax léegi moom mooy sunu représentant moom moo nu fa toogal ndeysaan keroog la la yahud yi di bàyyi moo tax ku ngeen gis yahud takkal ko garaat ku ngeen gis nasaraan yi takkal ko garaat muy jullit sikki sàkk leen ci moom bokkuma ngeen ne du jullit de waaye sikki sàkka leen ci moom ndax alquran moo ko wax hatta yarudduukum an diinikum in istataaw fekk ñu ngi fexe ñoo ngi mën fexe yow doo nekk jullit moo xam góor nga moo xam jigéen danañ ko def in istataaw fekk ñu ngi koy mën danañ ko def alquran wax nañu ko bu yàgg waddu law tudhinu fa yudhinuun ñoom chaque jour dañoo bëgg yéen ngeen di nooyal su ngeen nooyalee rek ñoom tam ñu daal di nooyal tey ci àddina bi foo torn foo toll yaa ngi gis yaa ngi dégg yaa ngi teg sa bët bëj sa biir kër bëj sa biir néeg yaa ngi gis ni yahud ak nasaraan détruire sa njaboot détruire sa kër fu ñu ko jaarale ci su- journée yii fu ñu ko jaarale ci bis yii fu ñu ko jaarale ci xew-xew yii fexe ba yëy bopp jigéen ñi tey jigéen jooñu toogal mun a la toog kenn dootul toog li loxo ñaari loxo ñaari loxo ñooy takk tubéy ñaari loxo ñooy takk sër loolu sax lañ lay gëm loo waaw mooy lan mooy lu góor mën jigéen mën na ko yal na nu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal na nu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله بقي يلا إن يوم المرأة دعوة لجميع النساء في العالم أن يتحررن من كل قيم النبيل بسبب وقت bisu jigéen ñi woote la boo xam ne ña ko woote te mooy yahud yi ak nasaraan yi li tax ñu woote ko mooy jigéen na am liberté na libre ci bépp valeur boo xamante ne daf ko doon yëkkati daf ko doon làq daf ko doon setal daf ko doon laabal na am liberté ci loolu nañu mujj nekk ay jigéen yoo xam ne laa qiyama lahunna bu ñu am benn valeur bu ñu am benn jikko bu ñu fekk ci ñoom bépp laab wala set nañu mel ni ay marchandise te tey looloo am jigéen ñi day daanaka ñoom marchandise yi ñoo yem ndeysaan jigéen ñi ak marchandise yi yenn saa yi sax nga gis marchandise boo xam ne moo gën a seer jigéen tey wax naa leen ko fi benn xutba waaja doon laaj waaja waxoon mbokk mbokkam ba xaritam ba yow de sa oto bi moo moo nga ëppal valeur ak sa soxna sa oto bi moo ëpp valeur ak sa soxna waa ji ne ko yow xanaa da laa tax naka laay jëlee sama oto muy ëpp valeur sama soxna mu ne sa oto bi boo xëyee di nga ko sangu sooy gaare da nga droite fu ñu ko dul laal su guddee nga jël baas baas ko pour lay bi bu mu ko laal pour poussière bi bu mu ko laal pour bu ko kenn xoos mu ne waaw mu ne sa soxna nag lu tax muuruwul comme ni nga muuree oto bi tey ci Sénégal am na ñoo xam ne seeni oto moo ëpp valeur seeni soxna foofu rek la déedéet. di nga romb ci yenn place yi ñuy jaayee yenn matériel dañ leen utal ay mbuus plastiqué leen waaye dugal leen ci ay verre kenn du leen laal boo ñëwee rek da ngay fay prix amul waxaale waaye wala tey jigéen ñi dañ leen futti sànni leen ci mbedd yi foo romb xanaa ragal yàlla bu la neexee nga tàpp bu la neexee nga laal te dara du la ci fekk waaye waaye ci li muy def nii loolu danañ lay toll yàlla nu yàlla suturaal. na ngeen fexe jigéen ñi bu ñu am kersa bu ñu am benn jikko laa qiyama lahunna bu ñu am benn valeur nañu mel ne ay marchandise yu yomb lool na ngeen fexe ndaw si ku ko neex waxal fu ko neex toog bu mu déglu kenn laa daxla li waalidiha wa aw zawjiha fi xayaatiha wa hurriyatiha même bu amee jëkkër jëkkër ji amul droit sax dugg ci vie privée su ko waxee mu ne ko sama vie privée la amoo droit fii nga am droit yow da ngeen fexe jigéen ñi gëm loolu wala tey loolu moo am suñu société fexe ba yëkkati jigéen ñi teg leen ci kaw góor ñi da ngeen fexe jigéen ñi seeni baay yi leen jur ak seeni borom kër yi nga xam ne ñooy sëy ak ñoom buñ leen dëggal dañu am liberté ngir ànd ak ku leen neex wala wax ak ku leen neex. nañu def tabarruj nañu tambaamalu bu ñu xëyee rek nañu sang dangal seeni tubay yu ñu fëkk gàddu seeni saak sol seeni dàll cap xonqal seen tuñ yi ba mel ne dugg ci mbedd yi waaw da ngeen fexe benn jigéen bu mu toog nañu tambaamalu nañu génn biir kër yi jamono ja doon wax jigéen doogal sa biir kër jamono boobu paase na bu leen déglu yàlla mi naan leen waqarna fi buyutikunna toog leen déedéet jënd leen fexe leen ba bu leen am diine bu leen kenn muur ay muuraay lan loolu jamono septième siècle la woon muuraay wees na na ngeen fexe ba jigéen ñi nañuy wër ci mbedd yeeg àll yi yéeg ci avion ya ko wàcc bu ñu déglu diine bu ñu déglu jegeñaale bu ñu xool benn mabaati ay valeur bu ñu ko xool mu nekk daawa seytaaniya daawa boo xam ne ay seytaane yoo xamante ne ay bukki yoo xamante ne ay nit lañ ñoom ñoo ko créé ci àdduna bi pour contre sharia rabbil alamin borom asamaan ak suuf yahud ak nasaraan yooyu ñoo xam ne lépp lu yàlla wax ne nii la ñoom ñu ne nee la góor ak jigéen ñoo war a sëy ñu ne déedéet góor ak góor bu leen neexee ñu sëy jigéen ak jigéen bu leen neexee ñu sëy miraas góor day am ñaar jigéen am benn ñu ne déedéet ñoom ñëpp ku nekk ñaar lay am arrijaalu qawwaamuuna ala nisaa góor moo war a nekk kilifa mooy jiite ñu ne déedéet jigéen tamit day jiite lépp lu yàlla wax ak yonent da nga fekk yahud ak nasaraan yi indi seeni big rouge di ko corriger société bu mel ne Sénégal quatre-vingt-quinze pour cent musulman tey nga xam ne war nañoo dugg ci yooyu waaye nax guñ ñu nax ci ay mbubb mbubb xam nga ñun fii problème bi société bi dafa am problème bu rëy di nga gis ndaw soo xam ne mu ngi woon këram xamul lu xew benn jigéen ko fay fekk ne ko mbubba ngi nii àjjuma mooy journée mondiale de la femme dañuy wut dañuy dugg dinaa indi fi oto mbubb maa ngi nii nga sol nga ñëw ñu dem après nag boo ñu bisee ma jox la 2000 rek nga gis mu daal di yéeg dem yoonam ñëwaat fekk moom xamul lu xew xamul journée bi lu ko tax a jóg xamul ne journée bi mbirum pas-pas la mbirum aqiida la pas-pas xamul ne ay yahud ak ay nasaraan ñoo nekk ci ginnaaw pour xeex lislaam ndeysaan loolu mooy suñu problème tey kii yu bëree bëri yu ñuy xeex xamuñu ne ñu ko tëral ay yahud lañ ak ay nasaraan nga gis tey jullit yu bëri di ci dee jullit yu bëri di ci dugg jullit yu bëri gëm ko di ko défendre ci adduna bi yëpp léegi bu ngeen jógee jumaa dem leen ci télé yi di ngeen fekk jigéen ñi di défendre journée bi tey fekk xamuñu ndeysaan ñoom xamuñu sax lan moo tax journée bi jóg xamuñu ñan ñoo nekk ci ginnaaw xamuñu lan mooy cosaan bi xamuñu lan moo nekk ci biir mbokk jullit yi fexe ba jigéen ñi dañu génn ci mbedd yi noonu wër nit jigéen góor amee droit takk ay soxna ñoom tamit ku leen neexal ñu nekk ku leen neex ku leen neex ñu nekk mën na sa mën na ñëw sëy suba tas ngoon waaw ndax am liberté day commencé la wala tey suñu jigéen ñi da ngay dégg koo waxal mu ne la ah yow yaa ngi sa sëy bi ba tey nga ne waaw mu ne yaa ko tal man dama doon sëy sëy naa ko ba pare mos naa dajeeg benn jëkkër benn jigéen ne ko ana sa jëkkër mu ne ma delloo naa ko ndeyam ma ne ah mu ne waaw delloo naa ko ndeyam allahu akbar inna lillahi wa inna ilayhi rajiun fan lañ toll tey ci jikko yi yàqu mbokk yi ana sëy bi sëy naa ko ba pare yow yaa fi nekk yooyu yooyu yooyu sëy ay sëy nii ñu naan la pick ak peer ay màgget fa dee fa yooyu jeex na ci kaw suuf yooyu la la xale jigéen di di may tey yooyu jeex na fu ñu ko jëlee ci télé yi leen indil xoolal film yëpp yi ñuy teg ci Sénégal góor ak jigéen la affaire góor ak jigéen rek sexe rek kese sol gu bon góor ak jigéen jeex na langage yu garaaw yu bon yoo xam ne te lu doy waar ndeysaan mooy tey am na ñoo xam ne dañoo abonné dañoo abonné bu julli jotoon sax dañ naan ma ba film bi jeex ma doog a julli nañ leen xoolaat suñu bopp nun ay jullit lañ yaa ayyuha alladina amanu udxulu fi silmi kaffa wala tattabiu xutuwaati shaytaan innahu lakum aduwun mubin yéen ñi gëm yàlla yàlla nee na diine ji dugg leen ci lépp udxulu fi silmi kaafa yàlla nee na diine ji da ngeen di dugg ci lépp waaye ngarale ngarale teg benn tànk fee jullit laa Fatima laa tudd teg benn tànk fee lu yéeféer yi indi nga jël loolu diine afa tuminuna bi baadil kitaab wa takfuruna bi baad فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون yàlla nee na ndax da ngeen a bëgg a gëm lii bàyyi lii da ngeen a bëgg a gëm lii bàyyi lii su julli jotee nga ne naa julli waaye bu ne da ngaa war a muur nga ne ah loolu nag mënu ma ko mooy gëm lii weddi lii fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum xam ngeen lan mooy fayu kii def loolu ci yéen illa xizyun fi xayaati dunia yàlla leen ci àdduna dama lay toroxal rek moo tax gis nga tey dañoo torox nga gis ab jigéen mu futteeku def yaramu neen léppam ci biti sol waxuma sax am na tubay yoo xam ne sax góor war na ko rusa sol nga gis jigéen di ko sol te li ci doy waar da ngay gis ku toll na ñay naan day sol tubay ngand ngandaay boo xam ne bunt bi du ci xaj naan day sol tubay tubay yoo xam ne boo koy simi fukki nit ñoo ñëw jàpp say tànk di tëj loolu ban diine la est-ce que ñun góor ñi amuñ ci responsabilité est-ce que ñun amuñu taxawaay tey jii ci sunu doom yeeg sunu sunu sunu sunu sunu sunu est-ce que góor gu am fulla gu am personnalité gu am diine sa jabar dina sol tubéy taxaw di la romb ndeysaan jàngaloon naa benn jigéen mu ñëwee fekk mu sol jiin ko waaw yow soxna si yow tubéy bii ngay sol nag yow ah at yi nga am yéen si damay bañ a am wujju sama nijaay nee na bu ma ko sol rek takkal ma wujj léegi nijaay lañ war a diglu wala yàlla lañ war a diglu laa taata li maxluqin fi maasiyati alxaaliq même boo amee jëkkër wala baay wala patron bu lay def la bakkaar da nga war a lànk parce que kenn du topp nit ci bakkaar innama taatu fi lmaaruf lu baax rek lañ war a topp nit yàlla tabaraka wa taala lu ñu wax dafa leer yàllaa ko yonentam ñoo gën a yey ci topp te jullit maa kaana li muminin wala mumina ida qada allah wa rasuluhu amran an yakunu lahumul xiyara min amrihim wa man yaasi allah wa rasulahu faqad dalla dalalan baida warul jullit bu góor warul jullit bu jigéen yàllaa ko yonentu wax ñu ciy teg ba yàlla su waxee jeex na yonent su waxee jeex na waaye fii danga naan yàlla nee na ñu ne la waaye ñun kat lii lañ fekk mag ñi di def ñun kat lii lañu fekk dëkk bi ñun kat lii lañu fekk tey jii looloo tax diine l'islam mën mënul taxaw Sénégal da ngay dégg rek ñu ne dëkk bi jullit yoo fi ëpp waaye doo gis l'islam l'islam tumuranke su bidaa yi wootee ñëpp dem su sirk wootee ñëpp dem su caaxaan wootee ñëpp dem su yahud yeeg nasaraan yi wootee ñëpp dem e ana l'islam benn jigéen lu xew ci événement yi Sénégal yi rek day dem lu xew rek day dem ku woote mu jóg benn bis mu jóg jëkkër ji ne ko kaay kaay kaay kaay kaay mu ne ko lan la mu ne ko damaa bëgg nga wax ma foo bokk pour boo dee ma xam su nit ñi ñëw lu ma leen di wax wax ma foo bokk ndax yow bis bu nekk nga dem bés bu nekk nga dem léegi léegi waxal foo bokk ndax bu say mbokk ñëwee boo dee ma xam kat ñun bu ñëwee ñu ne man lii la woon maa wax loolu mooy nun nii kenn xamul nun fu nu bokk kenn xamul ay jullit lañ kenn xamul ay yéeféer lañ tey mooy journée mondiale ñoo ci ñun ñu ngi nii fi mu nekk ñoo ngi julli si jumaa waaye tegal nañ leen añ boo xam ne seen jawar tegal na leen añ doo ñëw mu ne la tey la journée mondiale nga lekk ba suur doo ko weddi bu reer jotee mu ne la tey maa lay gàttal danaa la reer tey la suñu journée bu tax weddi woo ko bu tax xamaloo ko lii yëfu yëfut ak nasaraan la 31 décembre kazalika 24 décembre kazalika fii yu bëree bëri ci li ñuy feetu xam nañ ne yëfu yahut la ak nasaraan yëf day weddi yàlla cosaan ba baaxul waaye terewul ñoom ñoom dañuy ne pat musibɓe fulɓe caggal yettude allah e juulde e nelaaɗo men mouhammadun sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wala nganndi hannde e aduna o ko ñalawma mo ngannduɗaa ɓeeɗo e wiyeteeɓe heefereeɓe ɓe addii ɗum e meeɗen sabu yaltinde rewɓe meeɗen e nder galleeji maɓɓe hannde kala ɗo njaaɗa e aduna o a taway rewɓe ɓe ɓe ɓorndi jomji daneeji ɓe mbii ɓe mawnintu ñalawma mo ngannduɗaa heen ɓe dañi liberté maɓɓe e indépendance maɓɓe heen ɓe dañi hoore maɓɓe heen ɓe jeyi hoore maɓɓe ɓe taƴi ɓoggi ɗi ɓe mbi ɓe taƴi ɓoggi ɗi holko woni ɓoggi ɗi woni l'islam jaggunooɓe l'islam hatnooɓe waɗde ko ɓe wela hannde l'islam o yo fawe to debbo fof jeeya hoore mum mi wawlani on naane wi mi wona heen e leyɗele l'islam de rewɓe yaltii toon ina ngulla ina ndewe laabi ina ngulla debbo gooto journaliste o tottimo micro wimo hannde holko hol woni sababu yaltuɗon e galleeji ɗi o wi emin yiɓe emin yiɗi fodde no dañde indépendance no worɓe ɓe dañira ɗum ne hannde min yiɗi tolnaade no rewɓe ɓe no worɓe ɓe tolni ɗo emin yiɗi noon tolnaade sabu rewɓe worɓe ɓe hannde kala e welaaɓe maɓɓe ma dañi rewɓe nayo minenne hannde somi welaama min daña worɓe nayo beele ɗum ɗo ko diine hannde ɓeeɗo wiyeteeɓe yahude nasaranu ɓe etima haɓe yalti ɓe yaltini rewɓe meɗen e diine on yii hannde rewɓe ɓe koɓe ɓornoto on yii hay gooto joɗaaki pour neede ɓiyum hay gooto ruttaaki e allah kono annden peeje no piilti en yeeso e caggal nano e ñaamo kono ɗen peeje fof ko peeje heefereɓe sen deƴƴi en waasi artirde hakkillaji meɗen en jooɗi meɗen ƴeewa ɓesgu men fof ko jaygol fa yewma qiyama allah wino an qu anfusakum wa ahlikum naran ndande koye moon ndande ɓesgu moon e jaygol kono ganden peeje hande keewɗe ene piili en ene taari en peeje ɗe hoto ummi koye heefere ɓe ngummi اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم